président de la République président ci collaboration ak président président la bi nga xam ne mooy demande historique ci la carte de la Constitution en 1902 sax ne bala ko daa yàgg lay taxaw jàll mu nekk clarification officielle du gouverneur général Afrique centrale les porcelaines ko jaar 1964 ba jub 92 wala 2012 Macky Sall bu 2012 ñu am fi ñu xaar mbaam kii wala bëgg jot président daal bi ko ko la doon fa la wala salaamaaleykum Aliou xaali mënoo ñi ñëw na mu ne xaali mënoo ci wàccal ma lii bar walla wàccal ma liibar ci xaalu mënoo ci ndax fi mu ne client yaa ngi ma wër. gaawal waay ngir yàlla eh, eh, eh. gaawal ah ah ah yow tëj ko. tëj la. salaamaaleykum. maaleykum salaam. naka def. sant bu baax kooku kan la. Ahmed Babou. Ahmed Babou. Ahmed Babou wallaahi. di wootee fan. ma ngi wootee fii ci ñaari tali. ci ñaari tali. ñaari tali ci booru benn tali bi. ah ñaari tali ci booru benn tali. ah ma nga fi yar yow de. noo def ak ñetti tali. booba dëkk du faafu ma dama ko dëkk ci benn bi jàpp ñaar. yow lan moo waral sa woote bi ci pale bi. ci waaw man dafa am jaaxale ak li ko sonal leen. ah lu la jaaxal. man dafa jóge Mauritanie. ah barke dënd. ma jël ñaari xar yoo xam ne xar bi benn bay ma jël xare bi. waaw ma dëkk Sénégal ma tëng-tëng ko xam nga tëng-tëng. waaw nga daggat ko. mooy ma daggat xare bi ma defar ko ma jël garis bi mu rafetlu garisu xare bi ma nga rafetlu ma weer ko kuram bu mu wax xare bi xare bi xare bi xare bi. Hmm. waaw léegi ma jël xare bi ma supp ko ma defar ko. waaw. ma defar xare bi. Hmm. supp ko ba dara desul lu dul xar bi ñor. ma commencé bëgg a jaay ñu dëkk dëkk nu yuuxu daw ma ne lan ñu ne ko fër fër.

am na loo xam ne ci jaamu yàlla la bokk. moo nekk den policiers yi ñu ngi ci tali bi. waaw yi ñu ngi ci tali bi taxaw pour sécurité askan wi. dëgg la kay. léegi xoolal ñoom fan la nekk nga yóbbul leen bool bi. ñu reer ba kon naar gën a bayee. yow nga taxaw naar jaayul ci jaayuloo bara mu jox ko police sama dëkk léegi man ana sama bénéfice sama xar ma part. ma ne deful loolu tey deful loolu. waaw léegi kon kon léegi denc ko dee xoolal léegi denc ko bu subaa mu forox mu yàqu. déedéet waxal président mu ñëw jox ma ma jënd sama ñaari xar. ah ah président. na jaww mu jëndal leen ko mu jox leen gannaaw ba ñuy wër dëkk bi kay. mu jëndal leen ko ñu lekk ko. léegi kon indi bool bi pale indi bool bi pale. léegi ma andi ba li liif dal ma. indi bool bi pale. ñu ñu ñu duma ma ci couvre-feu bi. léegi ah, mu ñu ma boobu mu ñu boobu. léegi kay kon moom solution boobu rek laa fi gis. ma mënul nekk ba neen président. naar na ne mu ngi jógee gànnaar te Sénégal mu rotane benn bopp rek kenn mënu ko xar ñaar. waaw ñoo bokk seen mbay ñoo bokk seen a waaw léegi na nga nekk. Ah. yàpp bi bari na te mi ngi fii te dana lemb te naar lay part. waaw nekk na yëkkati xaalis li ma ko jënd bariwul na ma jox quatre cent mille képp ma jox ko ñu lekk ko ci tali bi. ah quatre cent mille ngay jaayee boolu yàpp dëgg la laaduma ak bali bali kay loolu jar na man ma déglu ma naar naar eh? laaduma eh? ak bali bali ci yem toog nga ba pare doon jaay couvre-feu bi démarré maye ko te yàlla tax ah, du ko maye ndax day perte doo ko ma ma départ waaw léegi wuy ma waaw votre correspondant ma fay de président mu ko yàqu ultérieurement dafa ko jël sa xar sa ndawal yàqu na